alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jullit yi topp suñu jataay fu ngeen mën a toll ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkale ci weeru koor wi leen ndokkale it ci guddi gu barkeel gi nga xam ne yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala moo xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di guddi laylatul xadr yàlla wax ko ci alquran nag répété ko ñetti yoon boroom xam-xam yu bari teg seen loxo ci ne ñetti yoon yi ñu ko répété yépp boo ko jëlee ñaar fukki xaraf la ak juróom-ñaar moo tax ñu dàkku ko ca ñaar fukkeel bi fan ak juróom-ñaar muy guddi ñaar fukki fan ak juróom-benn euh, beneen bi ci desit nag ñu teg ko ci xadiis mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon taxarraw laylatal qadri bi asril awaqiri fi ramadan yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf nañu woon na ngeen jeexaat laylatul xadr ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor waaye nag muy guddi goo xam ne yàlla daf ñu ko nëbb ngir barke bu mu am ak ngëneel yu nekk ci moom guddi googu kon nag suñ bëggee noppalu ni ñuy def rek mooy nañ jàpp ni guddi gu nekk laylatul xadr la buñ bañee mu rëcc ñu yàlla nañu yàlla dajaleeg moom euh, mbokk yi mu bokk ci ngëneel yi laylatul xadr boo seetee saar wi lépp dañuy wax ne fanweeri baat la mu toll fanweeri fan yi ñuy woor nga seet laylatul xadr li ko yàlla répété ci biir alquran ci saar wi lépp ñaar fukki xaraf la ak juróom-ñaar ñu tënk ko foofu muy saar woo xam ne it nag yàlla dëxëñ na ci barke boo xam ne danañu ñëw ci biir saar wi euh, sabab bi tax ñu wàcce ko nag bari na nettali yu ci am bi ñu ciy njëkk jukki mooy dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toogoon ak saxaaba yi di leen nettali benn nitu yàlla bu nekkoon ca Israil ca banu Israil dëkkee woon xeex junniy weer yoo xam ne daf koy wóor bëccëg bi guddi gi mu fanaan ko naafila boole koog nag di xeex bi mu koy nettali ak jàmbarte gu mu amoon ak doole ju mu bari woon yorul woon lu dul benn ŋaamu giléem ci la daan defe léppam nag ci lay lekk ci lay naan ci lay xeexit nag yonent bi di ko nettali saxaaba yi keroog bi nga xam ni gaa yi dem nañ këmp kompaloo ko jaar ko ci soxnaam ne ko dañu bëggoon nga tàntatival ñu ko ban jàpp ko nga yeewal nu ko soxnaam ne leen da ngeen may jox ay buum ñu jox ko ay buum mu bàyyi ba mu nelaw mu yeew ko bi mu yeewoo mu fudd buum yi dagg ñu ne pexe mu doxul ñu dem wuti ay ceen jox ko ndaw si ne ko dañu bëgg nga seeneel ñu ko ñun daal boo fexe ba ñu jàpp ko loo soxla ci alal daañu la ko jox parce que soxna si gëmu ko woon gëmul woon yàlla soxna si bàyyi ko ba mu nelaw mu takk ko ay chaîne ba mu dëgër bi mu yeewoo mu fudd chaîne yi dagg mu laaj soxna si ne ko lii ngay def loo ci jublu soxna si ne ko dama bëgg natt sa kàttan fu mu toll parce que sa kàttan gi nga am ak gi nga ànd ak dafa jéggi dayoo waaye lii wolof di faral di léeb naan jigéen soppal te bul wóolu mu mel ni déey na soxnaam sekkareem xamal ko ne ko kawar yi ci sama bopp bi moom dong moo ma mën a yeew soxna sa bàyyi ko ba mu nelaw mu dagg kawari bopp ba yeew ko ca woo ay noonam ñu jàpp ko keroog bi ñu ko jàppee yóbbu ko ci seen tribune yi war koo torturer dagg nañ kawar dagg nañ nopp yi dagg bakkan bi dagg tuñ mi bënn bët yi di daggate yaram wi ñépp di ko seetaan yàlla sànni ci xel mi ne ko loo soxla fi nga taxaw ma defal la ko mu ne ko nga delloo ma kàttan ga ma amoon ma nekkaat ci terrain bi di xeexaat ba jotaat sa kàddu gi yàlla roofaat ko kàttan ga mu àndoon ak mu yëngal pieds yi ñu ko yi ko yeewoon pieds yi daanu stade bi daanu ñu bari dee yàlla roofaat ko kàttanam mu continuer di xeex saxaaba yi nimse woon tuyaaba jooju kooku am taxoon leen di jooy yàlla ne jibril demal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga joxal ma ko laylatul xadar neel saxaaba yi ci biir weeru koor am nañ ci guddi goo xam ne wecc na junniy weer ya ko xeex dañuy wax ne nag junniy weer bu fe genn guddi bu weccee junniy weer ku màggal euh, ku màggal guddi googa diiru li nga dund lépp kon kenn xamul ñaata tuyaaba nga am moo tax yàlla yéene na xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuyaaba am ñeneen ñu ne déedéet yàllaa ngi yéene xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laylatul qadri ci bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ko saxaabaam yi jege mu yég ne demam léegi mu jot moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tiisoo ko lool ci bu demee yiw wi daan jóge ci asamaan si malaayika yi di wàcc di ko dotti ci kaw jaami yàlla yi yiw woowu di nar a dogganti moo defoon yonent bi aw tiis yàlla ni jibril demal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee nga dalalee xolom bi jàngal ko inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu warruuhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xata matla'il fajri tanazzalu almalaikatu jooju nag bokk na ci li dalal xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla nee na mooy guddi goo xam ne bu jote li ko dalee fi jant bi suuxe ba ba ñuy nodd salaatu mi mina naw mi jibril dana wàcc mook malaayika yi lal seen laafi ci kaw suuf si fees ko dell yàlla di ci xool jaam ñépp bëtu yërmande ba baa ñuy nodd fajar ci la jibril di soog a yuuxu yuuxu malaayika yi ne leen arrahil arrahil jóg leen ñu dem jóg leen ñu dem bu jibril àddoo wax loolu malaayika yi daañu ko laaj ne ko yow jibril naka la sa borom defa xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril ne ko yàlla xool na leen bisu tey bi bëtu yërmande boo xam ne kum ko xool yërëm nañ la yàlla jéggal na leen seen bàkkaar yi ñoom ñëpp ba mu des ñeenti nit nag malaayika yi laaj jibril ne ko ñeenti ña sàggan ba bokkuñ ci yërmande ji yàlla séddale ñooñu ñan la jibril ne leen koo xam ne danga nga dëng say wayjur bokkoo ci yërmande jooju kuy naan sàngara bokkul ci yërmande jooju kuy dog ak bokk bokkul ci yërmande jooju ak koo xam ne fu mu toll mi ngi noonu ay bokkam du wax ak ñoom ku noonu am mbokkam lu ëpp ñetti fanit bokkul ci yërmande jooju dañ koy jéggi du ca bokk yàlla nañ ci yàlla musal moo tax jële nañ ci sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana feddali laxasaayam bu laylatul qadr mosaana jot wala bu fukki fan yu mujj ci weeru koor wi mosaana jot daana beru ji ca jàkka ja dootul taqaloo ak waa kër gi ci dara daf daan ber boppam foofa ca jàkka ja de def la atikaaf lu daan def ci jaamu yàlla rek daf ko daan ful bu fukki fan yu mujj yi jote waaye ñu seetlu it ne laylatul qadri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jibril dikk na wax ma ko ma génn dikk di ko wax sama saxaaba yi di leen wax kañ la fekk ca ñoom am ca ñaar ñu jàppante mu dox ci seen diggante ci werante wuñ doon werante ñu wax ne ba mu paree la ko fàtte waaye li gën wér daal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexaatloo nañu laylatul qadr ci fukki fan yi mujj yi ci weeru koor am na nag ñoo xam ne ñu ngi koy seet ci ñaar fukki fan ak benn am na ñu koy seet ci ñaar fukk ak ñett am ñu koy seet ci ñaar fukk ak juróom am ñu koy seet ci ñaar fukk ak juróom-ñaar am sax ñu koy seet ci ñaar fukk ak juróom-ñeent waaye li gën a gàtt boo bañee mu rëcc la mooy fexeel nga lu jàpp ne weer wi lépp laylatul xadr la kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa daan ci santit nag sayidatuna aïcha wala ay soxnaam ne leen dee leen ci bari lu ngeen di wax ne allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni mooy yàlla daal yow buur nga boo xam ne bu mën a jéggale nga waaye li ngay mën a mën a mën a jéggale ki nga gën a mën a jéggal mooy ki la ni la jéggal ma kon yàlla yow day man maa ngi lay jéggalu yàlla na nga ma jéggal loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lim ko daan dénk waa këram bu baree baree baree baree bari beneen bi ci desit mooy yonent bi sallallahu alayhi wa nee na Euh, guddi gi saabu saabu fukki fan yu mujj yi jote yàlla dana goreel ci xeetam wi juróom benn téeméeri junni daana ko goreel ci xeetam wi bis bu jot nag te bis bu jot day ful lu toll ni loola noona lu kenn xamul moom yonente bi sallallahu alayhi wa nee na sax xaw tuuti asamaan ak suuf mën a seede njëggal googu ci kaw jaami yàlla yi ne leen yàlla day faye ne leen aljanna kon mbokk yi li ñu ciy dégg rek mooy nañu màggal weer wi nañu màggal guddi laylatul qadr ndax loolu jaam boobu amoon ca banu israila te positif dong ko ko mayoon ak fexe dundal kàddug yàlla gi nañu góor góorlu ñu nit fexe teg suñu tànk foofa ndax ñun nag am nañ sansu ñooy xeet wi nga xam ne ñoo gën ci xeet yi ndax kuntum xayra xayra kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar yàlla wax na ca alquran ne yéen dey yéenay xeet wi gën ci xeet yi ndax yéenay digle lu baax yéenay terente lu bon kon guddi laylatul xadr gi yàlla bu mu ñu rëcc luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla nañu ko yàlla nangul ñu fexe di ci dolli suñuy azkar fexe di ci dolli suñuy sarax fexe di ci dolli suñ jaamu yàlla gën a feddali suñ taxawaay bi ñu ci yàlla sant ñu ñaan yàlla mu may ñu ci teewe ko ay at yu baree bari haza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu